d'exception dans ces pays normalement gis nga Jacob Zuma bi nekkoon président Afrique du Sud yoon da ko daan fukki fukki fukki fukki weer ak juróomu prison pour outrage à la justice donc dalay wan ni kon boog démocratie bu dee dox si dëkk war ñu xool kii lii la wala keelee la ñu xool ndax kii day bindal wala di waxal ki nga xam ne moo di njiiti réew wala ku jege njiiti réew ba daral du ko si fekk lu ko neex def lu ko neex wax lu ko neex bind def naa ne loolu dafa war a soppeeku lii yoon ñu koy jaarale yoon ba nga xam ne saay bu ñu nee yoon wax na ñëpp ne waaw gongo ñu wax ci ñeneen ñu bëgg yoon wax mu di mouvement nitu dëgg ñoom ñi lee dinañu porter plainte euh, commissaire Masserigne Faye bu camp Abdou euh, Diassé ndax dañu xam le moo di dafa bundu xatal euh, ñeneen ci seen ay membre yu ñu tegoon loxo ca bés ba ñu doon kon voté loi bi indi ay coppite ci kon bi code pénal bi code de procédure pénale bi ki lee di Seydi Gassama di njiitu Amnesty International section Sénégal moom li mu xam le moo di dinañu leen jàppale ci ay avocat bu ko defee plainte bi jàkkaarloo woon nañu niki tey ak taskatu xibaar yi ñu ondu ci ak Tidiane Diallo leen arrêté woon ci manifestation yi ñu doon def contre bi ñuy woowee terrorisme membre yi nekk ci mouvement nitu dégg dañ leen dóor ba damu loxo seen coordinateur bi commissaire Massarine Faye la ñu indexé ci mbir mi ma Serigne Faye le commissaire lui-même ma ne ko Abdou Karim Gueye ci la commencé nag di ma dóor quoi. problème mooy le commissaire lui-même déglu baax li may wax c'est très important il s'est déshabillé dem xam nga bi muy dañoo sol seen masque yooyu noonu mu dem changer yëreem sol yëre olof il est revenu bon mel ni ku jee cinéma quoi comme fii comme si comme si de rien n'était. non mais man aw ma doctorat médecine quoi jànguma jonguma mais am na lu xel mën a nangu kii di kii dinañ ko tàgtal ñii morso ñu naan ko 4 jours. mois quand on m'a adressé à Nianing on m'a fait un certificat médical de jours je n'avais pas de bandage foog tamit il faut qu'on soit sérieux dans ce pays-là ñu ngi woo kilifa yi nañu ko jëlee ci poste boobule déjà porté nañu plainte commissaire bi léegi nag dañ koy topp si yoon ñun dugal nañ tey plainte au niveau du tribunal ci procureur euh, que ñun kaar ñëpp dañu blessé dañu gaañ man dama je peux même pas prier nee nañu duñu mus a bàyyi xeex bi prochaine étape kër njiitu réew mi ca Mermoz ngir wone ko ànduñu ci troisième mandat bi ak loi bi ñu voté ngir xeex terrorisme. ngok euh, paasan ginnaaw bu ma la nuyoo gis nañu waa nitu dëgg des ginnaaw bu ñu leen bundu xatalee euh, ci biir euh, foofu la ñu leen tëjoon ñoom xam ne nañu ni dañuy porter plainte ñoom itam. waaw c'est comme yoon dëkk yoon la nekk def nañ la loo xam ni yëg nga nekk que tegul si yoon. nga dem fi nga xam ni fa la mbax ne doone benn nga wax ko fa Karim nag moom vraiment sonn na Abdou Karim Guèye xaw ma kan mi moom sonn na jàmbaar la nag wax dëgg yàlla mais man dama koy soufflé te yàgg naa di ko wax ñu ko jege neleen leen Karim xeex bi baax na dangar géeg yëpp